wa Barthélemy li may wax ci moom mooy euh, euh, euh, comme ni ma ko waxee sànq rek politique politique président Macky Sall ñun moom la ñu candidature parce que nous sommes parti socialiste nous mu def fi lu rafet comme bilan moo ngi euh, malheureusement Sénégal moom dafa am ñoo xam ne dañu moomee liggéey am ñoo xam ne aussi dañu moomee wax rek te foog naa ne opposition bi suñ waxee wax moom opposition bi loolu la nekkee maa ngi déglu Barthélémy Dias euh, démb ak barki démb ci ay kaddu ay kaddu yu tëggandikuwul muy tudd suñu secrétaire général sur le président Ousmane Tanordien euh di wax ba bay tudd euh, waxu ambulance ci koo xamante ne en fait Barthélémy bi moo ne baayam la man may lu wax jooju euh, xam ne Barthélémy yàgg naa ak moom Nous défendre le mouvement national des jeunes Euh, naa ko je l'ai pratiqué xam naa ne Barthélemy politique am violence verbale Ça, saaga la xam xamul leneen aussi soo leen ko parce que Barthélemy aussi jàngam soriwul njàngam soriwul niveau d'analyse aussi est très limité loolu ñëpp xam nañ ko euh, foog na né Barthélemy su yaakaaree né dem kaso mo mën tax mu doon un responsable politique au Sénégal bu ñëpp wék day nax boppam té et je crois que warna na legi, Sénégal yoon am fi parce que Bamou mu demee ba tudd bay saaga magistrat yi ñu tee ko yoon ko barki demb. foog naa ne wane na ne tiré na ci ay leçon parce que suñ ko ne nel magistrat loo joteeg magistrat yi ñemewul sax tudd ma ba magistrat ñu ne ko lan mu ne magistrat lu et je pense que langage boobu le Bartlemi xam Bartlemi xamul Darul lu dul saaga euh, kon à chaque fois que de besoin fu ko waratu ko a ci kawam ñun loolu gis euh, Diaz euh, c'est quelqu'un koo euh, et c'est désolant c'est désolant foog na politique yëpp et dama nañ politique sans ça, nañ def politique ci yar ak malheureusement c'est pas son cas et en tout cas li ma di wax ñun suivre yaakaar nañ ne leçon bi mu jóge euh, xam naa ne balaa mu cee dellu ci dina di di di di dina wax lu leer nañu. donc euh, loolu daal nekkoon sumay kàddu.